voilà donc comme ni ngeen ko gisee rek euh, ñoo ngi ànd ak suñu kilifa ànd ak suñu leader euh, le président Samuel Sarr kii nga xam ni mooy toolu lagan yi daara ji nga xam ni mooy daara yi Serigne Saliou Mbacké comme ni ma koy waxee tout le temps euh, président Samuel Sarr. képp koo xam ne nii rek ànd nga ak ñun tey ci bis bi ànd nga ak mbégte ànd nga ak contentement mais ànd nga ak euh, satisfaction bu rëy a rëy tool yaa ngi nii ñoo ngi ci tool yi pour euh, tàmbali góob bi euh, jàmbaari Serigne Saliou bi ñuy wax El Hadj Samuel Sarr donc kon ñoo ngi ci tool yi délégation baa ngi nii ñoo ngi leen di gërëm leen sant. moo jógee daal naa ko seet Mbacke wax moom laay seere dëgg la rek